lu mu itoo mooy bu nga xamal waa dë waa kër gi mooy les gouvernants ñu xam lan moom mooy sunu métit moo tax ñu def fa te déclaration bi pour xamal nit ñi lan moo ñu tax a jóg li ñu tax a jóg mooy dafa amoon ay revendication yu yàgg ay mbétat yoo xam ne yàgg nañu ñu koy ñu koy jàmbat ñu koy jàmbat ba léegi amul solution defoon nañu ko daaw ba tey gisuñu loo xam ne sensé na ba mu bëri te surtout mooy point yi ma doon lim léegi mais dafa am ay point yoo xam ne ba amuñu si satisfaction ñu yaakaar ne bu ñu waxatee ak état bi dinañu xam lan mooy sunu métit mooy dañu waxoon ne dañuy yokk sunu pension mu dem ba cinquante cinq pour cent mais ba léegi dara gisuñu ko lu dul waa IPRES rek la ñu yokkal loolu moo tax ñu jóg di laajte ñun en tant que sénégalais lan moo ñu sunu droit parce que dafa am benn article boo xam ne moom moo wax ne. les pensions pension ak rente yi saa bu ñu koy valoriser mu yokk il faut que pension bi yokk dañ gisul dara loolu moo tax ñu taxaw di laaj ñu ñu commandé ñoo nekk suñu gouvernants yi pour ñoom ñu taxawal ñu ndax ñun ñu am lu ñu war a boobu loi dafa amoon wax bu mu waxoon si augmentation retraités yi